mbokk mbokk yi Refane maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di leen jot ndi xibaar boo xam ne mu ngi jëm ci sargal maire fii ci école boox le 16 ci weer bi nu ne. loolu nag lu ko waral mooy yàlla dafa dogal nag maire di mairub ñëpp ñu doon ko jàllale nag ci mbokki jullit yi mbokki taalube yi Refane gépp rek kilifa diine yi kilifa aada yi maire yeeg président groupement féminin yeeg communicateurs yi nga xam ne ñoo ne Dakar ak yi nekk fii muy Xaadim sàmb ak euh, Samba Thiele ñu ngi leen ci woo nga xam ne ñoo yore mbooleem loo xam ne dañu ko wax di ko jot ndi di woo itam kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp rek comme ni ñu ko waxee woon maire yeeg ñëpp nga xam ne Tapha mooy mooy roi bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu nekk mbay guy gi ak mbër yëpp rek wuli en wuli deux kéwél men mbër bàyyi ñu soxla nañ ñëpp bés bi bu ànd ak dogal bi nañu nañu ànd ak maire euh, monsieur Djibril Thiaw fii ci boox école boox ñu defar bés bi ba lépp baax